mu war ko appliquer sans mu xol ma sàmba wala mu xol ma demba wala mu bañ xol fum far ñu fenn lañ far moy senegal lañ far ñu fuñ far moy li jëm réew mi kanam def ko te yalla rek tax def nañ li ñu wara def dem nañ fi ñu wara dem fi ñu mëna dem am na xam ne fa ñu fay jéggelu donc ñun ñi ngi ñaan ñun wa coalition defar sa gox mi nga xam ñom bi deux bu jaune bi deux bu rafet bu jaune bi nek ci digg bi am kilo am kilo bu violet di ñaan sénégalais yi ñu jox ñu la majorité pour li ñu wara def ñu mën ko doxal pour l'intérêt du pays, l'intérêt supérieur de la nation. Wassalam. ci wàllu ci wàllu mobilisation bi nga gisee déjà na xaw na calme am nañ yaakaar Sénégal yi xam nañu li war ak assemblée rôle bi nga xam ne am na solo bi mu am ndax boo demee dans les pays développés seen chambre yi dañu am doole kon assemblée lu nekkul lu ñuy xeeb lu am doole la lu am solo la kon ñi ngi ñaan sénégalais ñu gën génn voter ci pour que assemblée bi am gëdd bi war bu ñu ñëwee bu ñu jox kenn ku rek la coalition defar sa gox. asalaam